ngeen jëf mbokki wasaare làmb wasaare TV ñoo ngi leen di nuyu fi leen daan nuyoo te nag bu ngeen gisee toogaay bu jekki bi xam ne ndaanaan leen seet si champion lañ seet si su ma nee ndaanaan nag euh, ndaanaanu làmb dafa yomb waaye ndaanaanu bërëkat muy Adama Diouf te ñu seet si ko bëgg waxtaan ak moom ci làmb bëgg waxtaan ak moom ci li nga xamante ni ci la jógee bëgg waxtaan ak moom ci li nga xamante ni ci jëm ndax suñu juumul euh, def na dernier sotteem am ci ndam di jëmaat ci bés boo xamante ni bés bu mag la ndax su ma nee bés bu mag la su ma nee Adama Diouf wuli hmm. làmbu jooju làmbu du ko daax dama koy bàyyi mu nuyoo ndax xam naa ne tungu na du teew ñu natt ci ëkk Adama maa ngi leen asalaamaaleykum Ousseyn gannaaw bu ma santee la julli ci yonante bi maay gërëm sama ndey gërëm sama baay di sant ñëpp di nuyu suma grand bi monsieur Ipen nga xam ne bu dee dañu yar nit ci bëre bu ma taataanee bëre yu ndaw yi àll ba bañ ma duggee Dakar ci loxoom laa nekk ma ko nuyu obasa di ko naan ne voyage bu mu jógee France demoon na ci jaamu ñibbisi na ci jaamu vraiment itam ñibbisi ñoo xam ne neex nañu di ñaanal ñi nga xam ne ñoo tëdd fii yoo fu ngeen ma fekk fii mu nekk sama grand boo xam ne fu ngeen ma fekkee nag boo ma gisee fu ma neex laay dugg du ci waan du ci feneen muy kenn koo xam ne mag la ci man baay la ci man moo ma yar daal moo fu ma fekkoon ma doon poñante bu waxee damay bàyyi parce que mooy suma kilifa mooy suma di nuyu nag waa Wassare TV ndax nag wasaare ngeen adduna bi wasaare ki ci jàmm nag Wassare TV nag eh, mbir bi it la nekk di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp feebar bi nga xam ne yàlla def na ko fi yal na ko fi yàlla jëlee ci jàmm ñi nga xam ne vraiment eh, diggoon na ci gaal yi ñàkk ci seen bakkan yal na leen yàlla xare arjana di ñaanal ñëpp di baal ñëpp ak di ña di jaale nag le grand e Balla Gaye 1 nga xam ne yàlla jëlee na ko fi te loolu jombul kenn di ko ñaanal di ko jaale Balla Gaye 1 di ko ñaane askan gi yëpp di ko ñaanal fu mu dem yal na ko gënal ko fu mu jógee merci beaucoup jërëjëf. Euh, xel xel nit day jum waaye ñun foofu la ñu woon njëkkee ndax kilifa gu toll bala Balla balaa ñuy def dara moom la ñu woo njëkk a jaale di ko jaale mbokk làmb diko ko jaale ak làmb di ko jaale waa géejawaay di jël njaal lépp di ko teg ci loxo Balla Gaye numéro 2 di ko teg ci loxo Balla Gaye ci loxo Youssou Ndour mi nga xamante ni mooy doomam champion la di ko wax na nag euh, xale la te ndaanaan la di ko wax ne ko na gën a góorgóorlu ndax euh, nit ku nekk fi ñëpp a fiy jógee waaye dafa fekk dafa am ñuy jiitu ju am ñu topp seen gannaaw gis nañ li ko gaa yi yéene wax ji rafet na ndax kooku mooy làmb waaye di ko jaarale ñëpp di ñëw nag ci li nga xamante ni nii moo ñu fi yëkkati tey Adama Diouf ñu gis Adama Diouf Adama Diouf nekk ndaanaan Adama Diouf nekk champion mais Adama Diouf lan moo tax mu bëgg bëre bëre bëre simple xam nañ ne séeréer nga mais moom nga gën a moom nga gën a favoriser sax que bëre dóor bi lu war loolu. Euh, euh, dégguma olof bu baax ñu ne ku fàtte la fal. say foleku def lay bet ah, ñun dafa am lu ñu amal suñ bopp ba pare te lu ñu amal suñ bopp ku ne def cee bëgg a dugg ñu bari ñaa ngi leen di gis ci bëri doole bu bu bu affaire bi jàqee rek ñu ñëwaat ci bëri simple bi bëri simple boo gisee ma bëgg ko dañ ma ci yar tàggat ma ci ah, mu nekk loo xam ne nag boo ko gisee sax bëri sax moo gën a métti bëri dóor bilaay moo gën a métti ndax bëri simple ci ngay gisee kele yu bëri ba ma bu man bu ma koy bëree suma xol day sedd ndax dama ci bugg def loo xam ne eh, day neex ci lëkkale bu bari mën a jógee eh, lu lu yombal wax ji daal mooy nit bu la yaree ci dara rek loolu def lay neex doo ko fàtte mukk di nga gis benn ker nga gis ci benn affaire boo xam ne borom daf koy fonk dara moo tax mu fonk ko ndax ci la yaru moo tax mu fonk ko te Boré Sempoun nag boo buggee dégg-dégg mooy école bu mag wi ku ci jaarul sa affaire dina bari litis Boré Sempoun moom grand ci ngay dem di reporter ba fàtte na ci bëre nga nekk. Mhm. waaye bëri dafa neex yow xam nga ci dara. comme ni ma koy waxee rek dem lut simple da ngay gis mba mu ñëw bàkku tuus dem bëre nga gis amateur bi mu toog xolam sedd sax mu wàcc. fecc fecc fecc ba xolam sedd nga ñëw bàkku ñu mel ci xaalis bu bëri bëri ban ban ban ban làmb nga mës a dem lutte simple nga bëre ko sant na tey jii sa xol sedd na maanaam qualité yi nga ci def neex na la et puis ni ngi ci taseel te nga bëggoon bëre ñoom bëre nga ñoom nga dem lutte simple laa xam ne tey ji làmb ji ma dem tey wala làmb jii ma bëre tey moom moo ma gën a neex ci biir làmb ya ma daan dem. man nag la muy ma neex sax bari nañu ndax ku jaar équipe nationale xam nga ne boo voyagé da ngay bëgg a indi ndam yooyu daf lay neex mbor bu ndaw boo gis mu bëre bu gañewul nag rek da yaakaar ne gañewul dara moo tax gis naa sax ñuy tere nag yi Dakar sax ñoo ñëpp yeneen promoteur yi ñoo ko def parce que ñoo doon dem fii di teg fii ay nag yu baaxul di teg fi ay ay boo ko xamal la ko teg fi ay oto yoo xam ne duñu baax Ibou Diabe gis naa ko suma xarit gis naa mu jël fi oto macha allah kii maar day taali moo tax ba ñuy waa CNC am fulak seen fay da nekk kenn dootu fi teg nag tegal xaalis ku am xaalis bu ko neexee jënd oto wala mu jënd nag loolu moo ko indi mais mbor mbor dëgg mbor dëgg dëgg dëgg bëre nag moo ko gënal 2 millions. loolu neex na ma ba dàq nag yi bu ma ñëwee fii à 2005 la bu ma njëkk a jël Dakar mu ma gën a marqué ndax ay jamono ba ma daan bëre ba ma doon nekk ma dégg Alaaji saar di wax ay turu mbër Ousmane Diouf Tarala Mool on Jaga Sarr jamono yooyu nekk mbaru taw gadu di dugg e, di dama daan naan i lii moom ma bëggoon ci lim bi moo tax ma ñëwee Dakar nag bi jël lamb ji suur boobu guddi googu nelaw ma. le premier jour ñëw Dakar nga jël lamb ji. man suur bu ma njëkkee ñëw Dakar. laa njëkk a laa finaalu licence laa déposé ji woon ñëw déposé ko ñibbi ñëw jël si ko ñu ne boo demee adressé bu pare da ko fa jël ma ñëw ñibbisi ma nuyu Ousseynou Diop nga xam ne moo yor suma ci mu kaay moo yor suma lépp bu ma ñëwee fekk lañ dem liggéey poor bu ma ñëwee ma toog ci buntu bi seen buntu ba deg na ni xam nga sax adressé nga fu feetoo ci laa dem ci làmbu ja tase faak maa ngi nuyu Abu Jalo fekk la ñuy ngebu mook mbor bu ñu tudd Dudu Min Yaalaan ñu ne ma kaañ dem làmbu ja ma ne waaw naa mën a dugg mu ñëwee bu ci mu ne du ngeen dugg abu jël ne ma doo ngemb ma ne aw a jël lamb fii ay ma ah ne da ngeen bëri da ngeen dagg bi xam nga affaire organisation ma dem rek fu ñu ngemboo gis benn xale ser nii ma ne ko doo ma bi ma ngembo xale bi dafa ree ba tourné wu ba maa ngi yor ensemble Arsenal ak suma yel yu sew yi mu yow da ngaa a daan fii kenn ay so xam ne ay yaayam lañu xaw ma ñu doon ne ko yow kenn du def loolu yow bu la kay boo ko mënee abal abal ko rek. yow kan nga ab xale xale bu jigéen. laa gis mu sol tubéy teg ci ser ni ma ne ko sër bi pour bëgg ma abal ser bi dama bëgg ngeen xale bi ree tourné dama mais yow daal yow di nga am prétendant fii kenn xanaa gisoo mbir yu fi dugg sa yel yu sew yi booba ah, mayo Arsenal laa sol nii kiloot ma sol ko. xama yaayam la xama ne ko doo ko abal rek nit kenn du wax loolu nit mu daal jël ser bi sànni ma ko ma waaw ma jël ser daal di wàcc nii silib rek laa sol ma kersa pour wax ko takk nga jël benn Abu Diallo <laughs> Abu Diallo ah Gémbor boobu boobu waajuloo ko woon andi am doon jël si licence mooy deux mille mooy deux cinq xam nga boo xoolee licence bu simple deux mille sept deux mille quatre bu gaañu woon yal na ko yàlla xaree arjana baabu te mu dëkk coom bi. Mm-hmm. Euh, moo doon bu rek benn mbër bu tudd sa yeneen mbër si yàlla def ci tollatoo ndax loo gis day am accident ba mu gaañute ci la ñu wax ne nag il faut mbori uti assurance. ci laa ñu dekk ba nag ne il faut ñu am lisaar ma ñëw aussi lisaar déposé ko ñu bi dekk ba fanaanu ma sax ci laa jël si ko nag ñu ne boo demee arène ba ñu ma laaj ci ne sa lisaar mu ci arène bi mais boo dugul doo ko mën a jël ma dal noonu ngemb ci laa ngemb nag di daan di daan daan finaal ma final ak duudu. duudu du du du du min yaalaan noonu nag booba dañ doon bëre sax ñu ne ma may ma ne comme la bëre nekk noonu dañ ñaan bu métti nekkante noonu bi ma ne noo garaawul quoi comme bëre indi a may ko rek ma may ko ma sax 300000 la mais moom moo may final xam nga may comme combine quoi. waaw parce que ñoo bokk rek mais boobu dañ doon bëre dëkk ba nag. mais buñ ma waxee noonu sonal ma daal xam nga ñaan ma neex ah, garaawul jarul may reyante ak ñoom bàyyi may ko rek noonu laa def nag semaine ba dellusiwaat ci laa ñëw léegi bi nga nañ taxaw nañ taxaw foofu bi nga jëlee cent mille yi ku woon jël sa licence ñëw am ci cent mille war a delluwaat bi nga téye xaalis war a dëkk ba sa xel demul woon ci est-ce que du ma jógee dëkk ba ñëw Dakar. Ah, man damaa ñëw fanaan borse teg ma ñibbi dëkk ba non dama dem ñibbi samedi la woon dimanche ma ñëwaat daanu demi-finale am vingt cinq mille. nee na Dakar neex na ma ñibbi wa ma ñibbi su su boobu nag laa fa jaru dem ñibbi bu ma demee bu ma juumul. ma yóbbu sama papa benn enveloppe bu nekkul soixante quinze mille nekk euh, soixante di mille mm. mu ne foo jëlee xaalis ma ne Dakar mu ne ma ñun kay nekk nañu fii déglu ñu naan Adama Diouf Adama Diouf euh, non ngel jam ñëw daal sax la ñu wax bon noonu laa doon bindu ñu ne waaw. ci laa def man de bor ma nekk foofu ba di di kii dimanche bi ñëwaat ma ne damay dem bori ji mu ne ma hee mbor yooyu ñoo la ëpp doole fii bu demagum Dakar di ngaa tuuti pour Dakar mm. ma ne dinaa dem. ma tegu ci fajar bi ci tali bi ñëw indi samay ngemu yëpp nag dara desul. amul leen ngemu boobu don koo waaj waaw indi nag nekk fan ak suur boobu muy nag boobu yëpp ñëw moo ñoom mool ñoom euh, bu ma waxee tur ñoom mbañik ñoom kii euh, Lamine Sarandof ma ne ah nag du baax tey moom. ñi nga doon ñi nga doon dégg ñu leen ni lim ci li simple ñooñu nga fa fekk. suur boobu yàlla dogal nag ba suur boobu euh, ñu def man nag mbañik demi final mbañik doomu Robert ma daan ko demi final. Euh, Baba Warang euh, te mu euh, mën na nekk champion 2009 sax nekkoon na champion defe na moo mool oo mool oo sax jamono yooyu moo ko moon sax boo ko xoolee mais boo waree daanu rek mu corrigé ko di ko mboot jiitu ñu egg ci final maak moom. boobu mos naa ko daan sax 2003 nga kii xam nga léegi média am booy wax del wax dëgg kam maa ngee ko noonu lañ def ñu dem final. waaw ma daan ko ñu tegoon 400000 ma am 240000. waaw bor set ma dellu oto dem ñibbi de samedi bi desuwaat kii semaine bi desuwaat ma takku sama papa boobu bu may ëggee moom jox naa ko moom fanweeri junni ak lu teg ma 175 laa ko jox defe naa yéen des Dakar quoi xam nga da nga may kii da nga may kii ma jëlaat sumay bagage ci laa ñëwaat encore suur boobu nag laa muy doon tëj mbër yëpp ñëwaat encore benn mbër bu tudd Manuel Ndiaye maar maa ngi koy nuyu au passage moo ma mujj daan final man ak gars ba mu aadama andil aadama jegoon groupe ak rajo micro yooyu ak ak ampli affaire yooyu ci laa gagné benn groupe. groupe boobu maa ngi koy yor woon di ko luyee dëkk ba su ma benn nijaay bu baax Saar wan ah, soxla woon ko ci couper 2007 yu miti yi ma mujj ko koo jox quoi. su ni jaay bu baax boo xam ne après lem dañ doon nekkee euh, bu ñu fa dogee nekk bu ma doggee ñëw Dakar fii di ànd ak Birame Ndiaye eh, maa ngi ko nuyoo au passage demoon après bu ñuy añ xam nga apprenti day bari. bu ñu waxee ma ne suur naa xam nga rek day bari kersa mu ne ma Adama boo ñëwaat ci atelier bi fii luñ teg giiroo ko ak ñun mais boo ñëwee naan suur naa ko loolu dafa dafa rafetul quoi. ci la ñu xam nga siisul daan ci lañ nekkandoo foofu nag ba coupure yooyu ñëwee nag mu ne ma groupe bi dama ko soxla woon ma ne ko non du bala luwee moo urug bu passé ma ko non garaawul ko ndax defal na ma soxla lu ëpp loolu vraiment ndax nekk balaa jàmbur ngeen nekk jaam ak salaam maak ñoom kuut yëpp fan lañ doon daje noonu la demee ci la nag 2006 nag équipement militaire ci lañ ko ubbi. léegi moment boobu nga décidé pour ñëw Dakar. samp pour bëri moment boobu nag boobu maa ngi doon nekk ci géej gi. boo moo laa woon ci géej bi chaque année fa laa doon nawet année boobu la ñoom Ousseynou wax ne li nga bëgg du yomb fii fii ngay nawet ren man leen hii ñi ma nawet fii boobu maa ngi nekk ay Ngaparou di dem ay Linkin ay Guinée Bissau Maare ay Kafountine xam nga rek mool fa ngay nekk di dem dépôt ba nga xam ne bu nawet bi jeex si rek di ngeen toj kees bi. nga dem yóbbu sa waajur année boobu nag ñame fii la ngay nawet il faut nga ñëw toog fii entraîné ma ne toog fii xanaa damay ut liggéey mu ne ma noonu nga entraîné aadama li nga gañ ci nga ko am ma ne yii iseen ñi ma loolu ñu forcé ba nawet fi ma fi nawetee nag ci lañ waa euh, gra bi ñoom Pierre Ipen ubbi benn écrit ñu tudd ko écrit Mamady rabu Fatick bu baax boobu nga xam ne dégg naa wuli nag di ci coon naan euh, gis naa benn sëriñam muy naan sëriñ sëriñ sëriñ mën naa mën na sëriñu Mbacke Mbacke mën na faj rab bu ma jaxasee ak mbakk mbakk yi mbakk mbakk yi ma upp ma fa doole. mais loolu dinañ ci ñëw bu ñëw bu wulli loolu dinañ ñëw parce que nee na boo xoolee dama koy tooñ rek dama koy tooñ rek xam nga wax na ko aussi moo tax ma ci waxaal noonu ci lañ def noonu ñu ubbi école booba tax sama xel sax nekkoon na ci yeneen écrit mm-hmm. boo écrit bi daam Ndiaye mu ngi Maguette mu ngi ubbi ñëpp di wax mais xam nga tey dafa baax mm-hmm. ak yeneen yeneen booba sax dem naa ba tax bugg a dem écrit Ndakaaru bi waxanteeg ku tudd Omar Senghor maa ngi koy nuyu au passage mais nag bu ñu demee nag bu waa Fatick ubbi écrit ñu am kilifa lañu ndax bu ñu ñëwee dañoo bàyyi bu ma dem dëkk ba ñëw fekk ma xam mën ma petoog na Dakar fii mais dañu ñëw ba dëkk ba taal oto ñëw fekk ma fa suuru korité bu ma ko fàtte dama toog bu ñuy egsi boobu xam naa ko ci lambu ji moo nekk médecin lambu ji lu sotti am borom mais grab bi moo nekkoon médecin arène bi moom la ñu xamoon mu nekk médecin arène adressé ngor te kenn ju ko jox mu jëndi dara mooy jëndi ay kiam booba mu ngi mu ngi nekk médecin armée kenn joxu ko mu jëndal lii yàlla moo tax léegi moom média moom nanga nga moytu ay fen de boo waxee ay fen léegi gaa yi génne la ko fa lañ doon nekk dañ gis nit ku loxom déboîté moo ñëw faj ko dañu gis nit xar moo ko moo moo jëm faj ko ci la ñu ubbi nag écriment mi ñëw ba dëkk ba dama toog rek ba ñu gaare ma xamel ma xame ko ñu nuyante ñoo dañu soxla woon sa papa man xawma sax lu xew te xam nga boo defee jaamu sax doo xalaat dara ñëw toog ne ko booy bi daal dañ ko gis dakaar ñu doon def benn écrit ma nuyu Adama Ndour aussi sax man président et climat ministre ak ñoom waale affaire yooyu quoi ci lañ def noonu euh, toog waxtaan ne daal booy bi dañ ko gis Dakar te ñuy def benn écrit écrit boo xam dañ ko tuddee climat ministre xam nga kuy defal climat ministre kay uti ci dara def ko bugg def rek ngir séeréer la ndax Fatick na boo ko xamee nga xam dëkk lamb la ci lañ ko taxawal may nuyu sax ministre Abdoulaye Ndour bu baax a baax baax sama papa bu baax boobu di doon may jàppale ci lamb ji ci lañ def noonu waxtaan ak sama sa papa ne balaa ngay wàlli yaale sa dëkk tegul jox naa la ndigal te man ndigal lay wooyee ku ne jaar na pour yóbbu ma ci beneen écrit mais écrit maam it lay dee muy neex muy naqari xam nga loo doon nekk 2006 ñu formé la jamono googu saa waay sew naa de 85 kilos lay peese 84 16 ans maa ngi fàttaliku 2007 dama entraîné boobu fii laa fanaan ci kër garaa bi ma ne ko ah garaa gars yi nee damaa jeex ren de mu ne ma dangaa jeex mais doole nga am. booba ñu ngi Cambérène ba jógee ko foofu ñu xëy daw yi daw ba dem benn saal bu nekk fale ma dem bu ma bëggee yëkkati lu di mën a day yëkkati lii te lu ma yëkkati la ma cinquante kilos. nga xeeb ko ma xeeb ko xam nga rek booba xaw ma espoir ah. bu ñu demee làmb ja suur boobu man maa jël samedi ci jibi jilaas maa ngi koy nuyu au bu baax la fi dimanche man maa finaalu ponkal yëpp maa leen daan.